li nga wax waaye dafa am leen loo xamante ni dama ko ñëwoon avant élection yi nga am wax ma ko ci waa waa kër Sonko yi waaw tey dafa mel ni carte gi dafa soppeeku changé quoi non déedéet carte bi ma demee bëgg dem ci Allo Thiès déggu lu ma la wax mm-hmm. dama la Diomaye Diomaye Diomaye gi ñuy wax mm. waaye man la dama la d'accord naa Diomaye mën nga indi ban man la d'accord naa sax Diomaye mm. d'accord comme ñoom seen choix la nañ ko tànn moom laa wax kële mm. mais le problème mooy projet bi laa bëgg ñu wax man lan la un gars un fondateur membre de passé bu ñu wax ma son projet lan la parce que projet projet xamuñu ko lu expliquer mu clair pour man suma dem ëlëk mu mën défendre Ousmane Sonko wala fenen parce que man duma la contrer du totalement erreur ngay def ma dal sa kaw bo defé lu logique ju and mais tay projet bi nañ ma wax lan la wa légui projet bobu laajoon naa kenn wax ko ñama ko doon xamuñu ko mais le principal porteur de ce projet mi ngi ci biti mi ngi doxal nañ ko déglu man lool la wax dé mais japp nga ni yow yomaay comme ni ko waxon bu passé mom capable na pour yor Sénégal moom waa déggul ma la wax ma ni ñu naan peccum liir bu neexee ndey jaay tey ca mbagg ya mm-hmm. gis nga Diomaye avec l' compagnement des généraux qui sont dans ce palais là ak ces cadres de ce pays là il peut réussir parce que xam nga lu tax les généraux là ma leen lu leen dénkaat président Bassirou Diomaye xam nga lu tax non seulement seen capacité ak seen ak seen ak seen patriotisme parce que ils sont servis nous sous les drapeaux représentent Sénégal fu ne guerre jaay seen bakkan lu ne waxuma mal dara mais mais mais mais mais ci capacité intellectuelle

après ci kattanu yàlla coobare mu def le plus que le président Macky Sall c'est pour assurer confirmer que le Sénégal mi ngi en voie d'émerger dañu waxante dëgg loolu daal moo am mais euh, paré nañu damay jékki-jékki commencé yuuxu san xeet dal jumaay non non non bala mala wax dara damay xaar ba nga paré comme li ma waxoon les maires qui sont là rek 2 ans ku ko def 1 an lañ leen bàyyi bu mu am 5 ans ñu xol bu di see six mois ñu xol sen bilan commencé critiquer wala li wala la do wut mais pour l'instant c'est Diomaye fek qui est élu comme président il vient tout de de de s'installer

ak affaire problème yi mais tey ñu jëlaat def ko tey jii nii tabax ko ci. waaw mooy yu bëri yi ma dégg suñu frère le défenseur de des mooy Karim Xurum ak yi muy défendre yu ci bari yoy la mais xam nga le sénégalais n'est pas le Sénégal bu mère lu lay wax. Sonko bi muy campagne campagne ñu fugg campagne ñu mer loolu le communiquer nako mais dama boy xol li muy communiquer sax amana amana nekul ci xolam amana du mom te na seetlu benn affaire. Mm-hmm. ñaata communication bi Ousmane def loo xam ne violence la ñu wax ci yar ak ñaata yoon violence boobu ça a causé combien de morts président Macky Sall dama ko dama ko dina ma rey mbaa ma rey ko jaay bakkan buñ jàkkaarloo yooyu combien de moor la causé combien difficulté entre ñun ak kilifa dine yàq def lu ne bi mu du bi mu nekkee ci bi prison bi ci natt bi bi bi ko président Macky Sall neen jokkoo nañu di jokkoo ñoom ñaar rek seen problème barek seen problème muy dialogue te dafa noon baño national dem na dialogue xaw ma nu ñu koy waxee di dialogue dialogue intime dialogue national la doon bañ a dem mais jam na dialogue intime ba génn ci léegi bi mu génnee excédé nga benn affaire bu yoon bu Sonko attaqué le président Macky Sall Ousmane Sonko non il a félicité le président Macky Sall encouragé ko mais dem directement ci Amadou Ba engagé ko le pourquoi te Amadou Ba ne moo ko jaan soxna tuddal ko doom xaw ma lu ñu defante ñoom ñaar kon donc li may wax mooy euh, bu ñu mberetee nañu retenir tuuti ba giif soog a wax parce que vaar yaa ngi fi maintenant opposant la ne les Ousmane Sonko dootul opposant Ousmane Sonko responsable il fait partie des responsables de tout qui se passe dans ce pays des plus grands responsables moi le numéro 2..! kon donc defe naa Ce que may Ousmane Sonko mooy esprit dépassement Pardonnez les gars sauf les crimes économiques képp ku laaloon xaalis réew mi na joxe mais pardonnez leur liñ doon wax ak liñ doon def ak ba ci man ak politique ak far ku laal sa kilifa nga laal ko mais je demande au président Ousmane Sonko d'avoir un plus grand euh, respect envers la population avec esprit de dépassement surtout parce que les Sénégal duñ ko bàyyi mais ku ci mel man mais man damay la défense de Ousmane Sonko parce que du Diomaye Faye c'est mon gouvernement je dis le contraire c'est pas mon problème passé de de mais un président c'est un président d'une nation qui demande d'être rebâti et de consoler d'accompagner léegi j'accompagne le président Bassirou Diomaye Faye ci ay ambition ba keroog mo gis leneen bokk ma fa nak. mais d'accord nga ci gouvernement bés bu ñu teg. déggul ma la euh, Diomaye c'est un intellectuel Sonko c'est un intellectuel qui veut refaire rupture lañu ñu laaj mais tay ñi ñu jël ñëpp ku ci ne bu la waxé fi mu jaar ak ñangam xam-xam expérience am may na ko mu téye te it nañ ñi tekk rek dénkaan na dénk nañu ñu wóolu nag mm. mais déggul ma la man cat ak làmmiñ laay bañ mu dugg leen parce que bu leen duggee sonn na sa a euh, deux mille vingt ba léegi nag ci ay ci ay ci ay embouteillage ci ay embouchure ay dugg ci détail yu ne mais tey ce que je mooy la tranquillité de ce pays nag ñu noos tuuti après la guerre foog mu am noos nañ leen ñaan yàlla liñ leen yéen ni mu diisee ñu xool les coins et les recoins toog partenaires yi ñëw ñu dal partenaires yi ñëw investir ci dëkk bi Sénégal dox mag ñi sonn nañu wàññi lekk gi wutal jeunes yi liggéey favoriser dimbali jeunes yi encore les jeunes jakarta ma dimbali ci alkaati yi sonal nañu gars yi trop circulation bi ma soo ko bu wàccee dund gi euh, euh, euh, wutal créé booy emploi jeune investisseurs yi ñëw mu dimbali gars ci justice bi normal ba nga xam ne y'a plus d'arnaque ci ci les routes là mais Sénégal day dox lu la Sénégal loolu la xam bëggul fitna yàlla leen sax ba mu gën analyse ngay def ci ñi nga xamante ne ñaan nekkul Diomaye mooy président Sonko mooy président na Diomaye ji responsabilité moom lañ fal moom mooy président mais Diomaye jël responsabilité am nga jël responsabilité xam nga mooy lan. fallee ma ñu fal bi. dafa am passage de service la. ñu ne bëri nga toog sama premier ministre moom la Ousmane Sonko la. le porteur de projet sama premier ministre la logique loolu mooy responsabilité. responsabilité mooy nga toog ak Ousmane Sonko ngeen toog. nga ni nañ def diw ministre xool cour système xool fa mu jaar jëli ko il est honnête xool nañ ko def kii lii nañ ko def nii nañ ko def nii loolu mooy responsabilité Diomaye ay prise responsabilité ñu waxante dëgg nag les il faut qu'il y ait des intoxications man tey su ma neexoon position boobu laay ne ah lan Diomaye je l'ai jamais vu Diomaye mosuma koo xam sax ma ne barke maam Cheikh Ibrahima Fall dara jëti rasulullahi Diomaye bi mu génnee prison laa ko door a xam man Ousmane Sonko rek laa doon suuf ak le président Macky Sall yaa wax lii waroo ko wax kii moo def lii mais même chroniqueur yi sa daaw ma leen déglu parce que saagaak xasteeg wax lu la wóorul dafa doy waar moo tax en un certain temps j'ai attaqué d'attaquer le président Ousmane Sonko ci yu bëri parce tamit aussi parfois da ngay dem politique mu lu safara lañ jëme ñun ñëpp te du ko jar mais gars yi wax nag c'est des opposants nangooguñu mais yegg ni opposant Macky Sall bi door toog gars yi bu woon ci mu saaga mais après ils sont rangés derrière lui mais pas par intérêt lay doon bii parce que bii c'est un gouvernement travailleur lu ñu wax dañ leen ah maa waaw non Birame Souleye Birame ngi lay nuyu di la siyaar <laughs> di la ñaan a jàmm mais je crois que ni euh, parfois c'est ça ba nga arrogance di indil ci nit loolu manque de communication bu baax di indi ci loolu tamit teel a jël décision kilifa du ko def xamuñu nag euh, ba xam c'est une décision de Birame Souleye Diop xam nga c'est une décision du gouvernement bu dee gouvernement bi la hmm, mun nañoo bañ a dem duñ ci dem ma Birame Birame ba tey waxul duñ ci suñu loxo de duñ ci dem la wax.

dañ naan daayira bi kat baal amu fi lii amu fi de lii amu fi lii amu fi moo fi am nga changé yére changé lépp toog dootoo wax lool ku la ci ku la ci woo loolu nga bañ dafa dugg ci kuréel goo xam ne seen principe lii la mooy defar Sénégal il doit prendre ses responsabilités mais à la manière waaw man. jàpp nga ne seen dëkk lamb war nañ dinañ ko néewal doole war nañu néewal xam nga lamb nag naa wax leader yi nañ ma dégg ñoom ñëpp leader yi. lu ci biirum si mais lamb. Eh, ci gattal dafa aram mais man duma ko supporter wa dego man wa d'accord d'accord mais ñi ko bëgg ñi ngi ci hmm. duñ jox dugg ci affaire sharia ak yoy hmm. mais ñom ñi ci liggéey ñi ci liggéey hmm. mais biram na xamni aduna bi non la doxé aduna bi non la doxe li fi fekk nuko jema ñongal mom mën naa bañ dem mais kessu nguur gi daa am lo xamni c'est c' appelé pour ça c'est appelé pour ça oui rupture bu ko doon wax kon nañ jël caisse noire bi xëpp ko ne caisse noire amatul ba ñom biir pale sen dépenses sen salaire ñu dépenser il faut revoir les choses il faut revoir les choses te xam le Sénégal est un Sénégal il faut que ñëpp ñu xam ne ñoo bokk ñoom mom ñu xol nu ñu doxale rek mais la laj laaj du ñàkk nag bon biram euh, ñu lañu sante yalla parce que président bi papa ak yaay ñu ngi dundu <laughs> yaa ngi fay hmm, Ousmane Sonko wajuram mi ngi dundu Biram Toulé waajuram mi ngi dundu kon ñom ñëpp du du ay doomu aadama war nañu torturer le Sénégal mas la rek lay démé wax dëgg yàlla maslaa lay demee te sénégalais yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaakaar tas daal mu kaddu gu mujj gi mooy gannaaw waaw waaw waaw mais waaw waaw waaw waaw euh, Bassirou Diomaye da ko def moom imam bi jour Korité a na benn commentaire benn waa ngi man ko man geste boobu ça m'a fait pleurer hmm. man ko seetaan mu jóg ma ne ah yii de jaaxal na ma kii joxul kilifa diine cër kii imam bi da ko nuyu mu ne bëri jóg taxaw da koo yëkkati xam nga yëkkati bi lan la mooy dayo ko suñu borom la ko jox dayo dayo bi ko suñu borom jox la ko jox jóg yëkkati ko ak respect bi mu am yëkkati ko tàpp tàppal ko tàpp tàppal ko ba imam bi tàpp naa ko ko toogal mu door a toog te moo yëlif imam bi fii may wax ak yow bi ci biddi ci biddéewam waaye xoolal tey bu mu gisee imam ko taxaw ci l'islam gi mu gëm te ku jóg te xam ne l'islam mu féete lépp kaw mm-hmm. billaahi wallahi taalaay man daal yar teggin gi ma gisee Jomaay billaahi wallaahi tallaahi euh, billaahi moom laa gis Idriss Seck ba tax ma ko doon jàppale billaahi wallaahi tallaahi waaw. man nit waa man li may li may séduire ci doomu aadama lu ndaw la mhm. mooy dëgg gis nga président Macky Sall li tax mu gën ko mooy tranquille ay yar teggin jàpp ñàmburam xool fu mu toll nii fàtte nañ ko bëgg jël saaga yëpp wékkaat ko Jomaay kon ku bot bukki xaj boobu la Diomaye na nangu esprit de dépassement nanangul nangu te xamni yalla mi ko fal. moo koy dimbale dama ne bëgg xam xam yow geste bi mo la faraate ba nga dem jàppale léegi. non non écoute écoute très bien il faut que ça soit clair bul ne jàppale néna man bayina naa bokk ci benn parti politique. doo mo fenn mais mais mbay euh, j'ai droit à juger que ni je suis très euh, ému ci geste bi nga xam mom le président bi def parce que après tous les rumeurs président bu am yar. am teggin am kilifa wax dëgg yàlla comme ni ñu ko def ñu si président yëpp si président guma noonu ñu mel guma koo ci gis julliti gi ci moom sant yàlla wér bi xanaa Senghor Senghor il n'était pas musulman bi noonu la doon comporté ak julliti mais gestam bii dafa doon geste bu doy waar ci xale maanaam xale la wane ne man xale laa otew ma ni ma mel laa mel yëkkati imam bi toog wax ak moom premier gestam mu respect mais loolu mbay di koon mbay oh, billaahi man Sénégal moo ma ñor ñaata at laa toog président Macky Sall da nga maa gis ma am ci dara te toujours man len jusqu'à muy de wala mu gis len ak len dul lol keroog bi Mame Mbaye Niang di attaqué Ousmane Sonko man li c'est trop ci la démissionné carrément le parti bi jaxasoo na bàyyi toog suma ñambur nak mais dama ni la man respect dama koy jappé doomu adama man man bu mu bëggé séduire rek amul tuuti l'islam amul tuuti yar ak teggin mam serafal nee na ak julli mun na dugal nit aljana waye yar ak teggin mo yegg nit fa yalla déggul ma la jàpp ak julli mën naa yóbbu nit àjjana bu ko yaakaaree ay jëfam kese mu wékk ko fa mën naa yóbbu nit àjjana waaye yar ak teggin moo yóbbu fa yàlla te yàlla ku nekk ak moom nag dootoo ragal dara man de barke Sëñ Tuubaa ak teggin lay incarné ku ko incarné ñor nga ma ma déggoon ma ci lii nga xam ni am naa ko ci yàlla tuuti mooy gëm yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla réussite totale parce que mooy ñaata pont fi de bu dee 15 la Macky Sall Diomaye dafa 30 pont bu dee aéroport la ah na ñëw eh, Saint-Louis aéroport ba nag gën na ñoŋ ko nekk di fa wàcc. Mm. bu dee aéroport la Casamance gee nañ fa def ngand aéroport boo xam ne yokku yëpp dañ fay wàcc kenn dootul sonn def fay pont def fa lépp lu am Dakar na am décentralisé ba li Idrissa Seck waxoon na jël système na ko sàcc jël ko mooy chaque chaque année benn kii bu nekk un milliard Sénégal am na ko léegi léegi ak ministre yu pratique ak nu ko sant contrôle bu sévère léegi dëkk bi dox loolu kese la ñoo ngi ñaan jàmm yàlla sa borom am jàmm joma yàlla lay sur ak jàmm waaye mooy sama réussite mais maa ngi toog ñu jàpp sama ñaambur rek nekk ci tuuti vraiment jërë ngeen jëf en tout cas di souhaiter tous les sénégalais jàmm parce que ku ci am jàmm am naa ko di ñaanal président bi lu mu mëbët na ci waxtaan son frère Ousmane Sonko ñu bañ a réeroo ci meetar parce que Sénégal li ñuy wax naan dañuy def ni na leen yàlla jubale ba luñ fi teg ci réew mu dem yoonam incha allah rabbi ci kattanu yàlla ak coobareem loolu sañ nañu ko man du ma opposant buy saaga ay président di xaste du ma ko def de ñaanu ma yàlla bokk ma complexe européen yooyu nekk Europe di saaga sa président réew yàlla nu ma ko yàlla du ko def ëllëg te nuñ ci rus bàyyam ji dund sax jërë ngeen jëf Sénégal da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kattan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg si gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.